kaapay ma ay sa bopp moom sa bopp kaapay ma kaapay ma envoie zéro franc dépôt zéro transfert zéro pour cent gaawal kaapay ma ay ay ay ubbi sama compte kaapay naanaan nii lay mel samay facture yëpp lay fay daanaan nii lay mel jarul sax ngay bouger fi nga toog daanaan nii lay mel transfert ngay jot sum si defe code daanaan nii lay mel Sénégal def lu Sénégal moom lu Sénégal def lu Sénégal moom ñooy représenté lu Sénégal doon moom sa bopp moom sa alal yombal sa dund ba Sénégal yomb mën retiré 24 heures sur 24 la somme ok jarul ngay sonal sa bopp man ne lijjanti naa sama plan d'action ndax téléchargé na application bi kapay di gérer samay ma cash bi dal na ma cash bi dal na ma cash bi dal na ma cash bi dal na dépôt bi dal na transfert bi dal na kapay bi dal kit kit kapay ma ma moom sa bopp ma kit kit envoie zéro franc dépôt zéro franc transfert zéro pour cent gaawal kaapay ma ay ay ay ubbi sama compte kaapay naanaan lay mel samay facture yëpp lay fay daanaan nii lay mel jarul sax ngay bouger fi nga toog naanaan nii lay mel transfert ngay jot si defee code daanaan Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à 0 francs, le transfert à 0 pour cent et le retrait à 0 francs dans tout le réseau EDK. Station EDK, Jollof Chicken, supermarché Low Price. Kon kaapay war koo yóbbu wan ko biroo grand as ngay waaxu di waaxu yow lan la. yaa doo ne loolu nga may woowee fii de. Ah. yaay man xaw ma juróom. yow keroog kii gisuma la grand as jox la jox jox la jox la euh, carte visite la xaw ma. boobu soxla madame Guèye la ma doon doyee moom intérêt madame Guèye rek may doyee ah. yaa nag yaa damay jël di la employé su ko yaam ne woon ña ngay liggéeyal muy employeur bu kenn xëy kenn du xëy ndax dafay fonk wax ndeyam. waaye tamit sama yaay dafa war a xam ne sama doom dafa war a xëy heure wàcc heure dama tardé waaw yóbbu ma kër ga waaw léegi xoolal waxuma lool sax gunge ma ba ci tali bi ma jël oto nga waxaale ma oto bi ah yaay lii déggu ay oto yow mii ada suusurée do ada suusurée dara taxul jël oto waaw yaay waaw ah, baax na baax na li gën a mi tam moom tam fu mu teg téléphone bi ah ay dina xam ne hmm, ku aj ku la àjjee gën a aay ana bu paase étudiant encore xoolal gorom ga lamiñ du réer fu mu ko loqati kenn bëri bu may woote ne dafay mel noonu bu mën a mere yow boo xam ne damaa xaw a dinaa fi dinaa fi ñëw lu lépp lu nga bëgg suba ba ngoon guddeeg bëccëg maa ngi ciy dox. aji à yow lan nga bëgg. Mass nga de. comment changé. non da nga changé. non non man nekk ma nit kuy changé. je suis toujours la même personne ba ma ko rek yow lan nga bëgg yow. boo ko seetlu man seetlu naa ko wala bu fekkee li ma naan damay wax ak madame Guèye te defaguma ko loolu moo tax ma mer. non oui ma léegi sax. suba su ma xëy ko. grand nañ ko bàyyi leen. ah jaroo na la. wala non demal wax. loolu nga mënoon doyoo. non non man ko woon nga ñëw toog ñu ndogu toog waxtaan. tey moom du mu nekk instant dama xaw nekk ci yoon yi léegi suba naa ko permettre suba naa ñëw ndogu non eh, suba fii lay ndogu see. na dama nekk ci yoon nii bàyyi Adem incha waa grâce. ça va waaw yow maa ngi fi wala si si la nekk. Ah, yow naa la ba sonn jotuma la sànq ba tey maa ngi lay woo bi ma depuis balaa may départ maa ngi lay woo waaye fi mu ne nii dafa mel ni egsi naa de maa ngi nii ci ñaari cocotier yi waaw ci angle bi boo duggee. ñaari cocotier yi yan. waaw man loolu nga ma waxoon nee nga ma première ak fenn fii nga xam ne impasse la. non nag ma foofu de. nga di. sax balaa ngay ah, kon li nga baaxul man wër naa bay bëgg a dee sonn naa wër naa bay bëgg a dee eh! kii bilaax kii mooy kii kii yaa ngi toog maa ngi nii. yii yow sol. léegi su ma xamoon ne sa bopp ngay sol de ma ko sama bopp ñu nuróole ko. ah macha allah moo tax wutal la ci fekk. non bi ma ci jox kontaan naa. non man moom danga ma danga ma suspendre danga ma suspendre. ah surprendre. surprendre waaw fii ah. côté pendre la fii <laughs> côté yooyu la hmm. lépp pendre la non man moom su xamoon ni nii ngay ñëwee. yi nga ma jox jàllaa bi lu ne nga may ma ko. non accueil bi dana changé damay changé loolu. ñàkk xam ni mu waral bari na. waaw waaw waaw xaj boobu na xamul xamul. Hmm. xaj dana xamul xamul xamul. loolu la boobu <laughs> déggoo li xaj boobu sax macha allah mais noo def ak fii lekk yi kontaan nga ci. ah man de ñàkk lay bañ. ak ku jàng. <laughs> mais dama lekk yi neex na pourtant maa toog bi neex na de. waaw mais waxuma na dama ne ñàkk laay bañ. d' accord <laughs> d' accord naata yow da direct yow comme Pape Yaya. ñàkk laa de. <laughs> yéen dem voyage am bii passé gisoo dafa yàgg Dubaay. dafa yàgg dafa yàgg trop. xoolal yu mu mu ndaw judd na ba am ñaata weer. mais c' normal dan yàgg nag. Hmm. parce que dafa yor fi benn tànk yor fi benn tànk. Eh, déedéet ñaar tànkam yëpp fii bu lox loolu yow parce que bu egsee foofu day ñu muy xaar. Mm. ñooñu bu ñu egsiwul foog mu xaar leen ñu àndandoo ñun ñëpp jóg donc euh, c'est normal. waaw waaw c'est ça mais tànk yi moom bu mu ko bu mu ko na ko kepp rek. ah bon ah, est-ce que bu ko écarté wul dina baax di nga am kër gu rafet nii. di nga lekk ba suur dinga naan ba màndi bàyyi ko mu liggéey <laughs> macha eh, allah écarté jiguñu <laughs> jigéen suma jëkkër kay alalu golo ci man dama kolante bi ah. yow man je suis trop trop kolante man sama jëkkër ñaar maa ko tore kookole daal moom moom muy loose oto. déedéet kër lay daal. <laughs> waxu la ko. na ah, waxuma lool de waxuma yéen a bokk benn kër waxuma lool. moo tax kay xam naa mu delloo la euh, le pièce ne moo tax nga ñëw mu dalal la ci këram. fay na la ah, bon sama kër kër kër kër sa kër la. Eh, yow naat da xuusa de yow naata xuusa de kër dam du sa kër du këram sama kër la maa ko sëyal ba dara dara. mu jëw naata mi nit la xoolal bu naata te moo tax ñu wéyal la naata ngalañ ku nobul waaye jox ko cër naata mi. yow am nga jëkkër. am naa jëkkër. alhamdulilah. mu ne ko je suis soulagée jigéen taaram sëy la de. jigéen taaram sëy la. Ah, je suis laa xaritu jëkkëram. ñoom. ñaareel man ah. ko du ma xalaat. mais ku dugg ma ne la soor door. soor bunt bi dama jaar bi <laughs> kenn duggaatu dan xelam sa nekkul ci ci ay eh, loolu duma ko fooyee. fiiru ma nag mais damay bañ ko mayo <laughs> fiiru ma damay bañ ko mayo <laughs> naata yow naata sa jëkkër sa jëkkër nu mel hmm? ñiw gore góo li mu ta góore la. dafa góore ba pare ñëw. góore yi maa ko doon woowee de dala sama xel rek. nu solo. c'est te yow nag mën nga laaj de. man kon ajoor bu bërsee bi àll. ajoor bërsee bi àll day laaj rek jëli. nga ne solo. day sol yére olof di sol yére tubaab. lan la. sama téléphone mooy sonné. sa téléphone. sonné ñu wala ñu bépp ma rek xaw ma lan la. doo ko xeegali waxtaan bi ah. naaj bi ah waaw waaw waaw naaj bi fekk na lool. lool sonn nga de. sonn naa kay ah damaa demoon rek seeti sama benn xarit. bu yaram wi sutante mu feebar. dama faa jooy a jooy a jooy a jooy. addina bi léegi mi ngi jeex de. ay yow massa ah, waay massa kenn waratul de kenn waratul kenn waratul. eggal si biir yaay massa massa. massa sonn nga de. Oh, trop trop yaay toogal ma ñëw dégg nga. trop waaw waaw waaw. waaw oh, sa yaram yëpp a ngi métti. xaw ma lii du ko jar tànk yi ooy tànk yaay metti jaabante ba bari ooy ooy ooy torop waaye samay indition moom la moom la pour dafa pour samay indition man sama xalaat mosuma nax mu ne ma ne ma ah man ko doon ma moom ñaareel deuxième femme laa may noppi mu ne man sama jëkkër dafa góor a yiw te man kër daal góor a yiw laa koy woowee ma ne déet waaye ni kon sa jëkkër nu muy solo mu ne ma day sol yére olof di sol yére tubaab te man ni may gisee nii gannaaw ay xool lu ma dispersé ci nit ba xalaat ko sama intuition du ma nax. kon yaa moom wax ko moom maa ko moom yaay man. ñaar jot baaxul de. li ma intuition du ma nax. madame Sow bi may seeta la voyante dañu ma woon bis boobu solee yére bi ma lay may. di nga gis dara gis naa dara nag. Mm-hmm. kii de bu dee li ma yaakaar dëgg la. di nga gis sama cité ngos moom naa. loolu de xam nga ne ñuy seet dañ la naan bu ñuulul dafa xees. bu njoolul dafa gaaw. yéen yaa ngi toog. maa waaw ni ah, nii boo ko defee doo familiariser nag ci kër gi. kay doo ko déedéet déedéet kon duñu minante. <laughs> dafa minante rek toogal. déedéet waxtaan. dafa yéen a yaa ngi sëy. yaay maa ngi sëy ñaareel ñaareel laa xaritu jëkkëram ah waaye xanaa dangaa yàkkamti woon sëy yow tam ah lu ah, nga gën a jekk di ko ñaareel ay yaay ñaareel neex na de yii aawaa ah, jant néew bi di ay yaay ndax bi la xale yi di foowee léegi di ko defar ba paax di ko def crème fraîche ah ñun diw ñoon lañ ko daan def ah, loolu mag la ah mag ñee yor sëy yi nag la jëkkëram nekk am jëkkër fekk sa jëkkër fi la ne Dakar waaw sama jëkkër mi ngi fii ci fii ci waaye bàyyi ma bàyyi leen ngeen waxtaan xam naa yéen ñaar moom ñaa jërëjëf. jëkkër yi dina lakk bu yàggee nag yow mi la ñuy teg ne doo nga jëkkër fii la nekk sa jëkkër nu mu tudd lu muy solo yow di nga tuutil sa bopp yow yow kan nga nuru yu sama intention ndoxu sama intention ndoxu kër kan maa ñëw dina ma wax tey lan la kër lii day daf loo nit de di foog ak a yaakaar dégg naa dégg naa dégg nga maam et eh bien kaloo dégg nga maam dalay dofloo bu ko fi nangu. yow mel nga nu la neex yaa ngi solo yaa ngi solo mel nga ne man gëmuma sama bopp. gëmuma sama bopp waaye gëmoo sa bopp. waaye gëmuma sama bopp ma gëm la man ma gëm la. maaleykum salaam. maaleykum salaam. maa ngi fi. alhamdulilah. alhamdulilah. mu ci waañ bi. xam naa dafa sonn rek. egsi na dafa sañ. ndax kii dafa dina la. dafa sonn de. <laughs> maa sama ñëw toog waaw d'accord. te fii kay dama war a profité sax direct bi mu wax xaaral sax. loo ko jekku sax. lii lan la yow dëmb bi lan la yow yow laa doon gént lan la ah, yow dañ laa yónni pour nga ñëw lekk si ma dëmb bi nga doon. mais da koy gën ah. ah. maa ngi doog a xam nag yow nag ndekte yow mii yaay may tàgg ci <laughs> tàgg yow yaay Samy ak béti bu yow la wala da ngaa da ngaa da ngaa da tur wi. mère yow de balaa maa dee dinaa la suur ba pare. yow sa naa ko dëj maa koy dëpp. ko gëm la de. lan la lan la. kii de mi yaay lan la. yaay lu xew wax ma. lan la. dara dara gént rek tëb. yaay lan la yow tamit ah. ndeysaan ma lan la lu xew. yaay lu xew yaay. gis nga kii ku yaay kii sama goro la yow tamit. du sa pepp laa wax yi xam nga nan la ma def ndekete di tàgg yi ngay dégg ñu may tàgg ñaari yoon di tàgg nit ñu baax ñi ñëpp moom mii mooy def loolu ba ci Bouchra Sami Dia ah, ah, ah, maa ngi def loolu déedéet déedéet oh, fii la ma tàgge yaay loolu beneen seytaane moo ko doon def du gis nga bi ma ko defee samay mbokk samay néegu ndey samay néegu baay ñoom a jooy ñëpp a jooy xaru di yuuxu amita mee ngi njaay waaw conseil des collectivités territoriales dafa xam. déedéet yaay ay yaay. monsieur le maire Talla Sylla woo ma dama saraxe ndax li mu def baaxul xam nga ne kii dafa bon. déedéet déedéet yaay wuy ma. yaay wuy ma may ko ndox. waaye waat naa ne danga xoolal xoolal xoolal may ko ndox. yow ndox sonn na ko nga jàpp rek yow de yow de bis bu ma jullee ba ñaanal la. yow bi su ma jullee ba ñaanal moo ci mbóot ngay soppaliku. dara moo ci mbóot. waaw moom ngay soppaliku si mbaa mboot. dëmm xaraam bi nga doon. nga bañ a gis noo xóor bi. sàcc dëkkaale bi wër de confiance. yow yaay Sami Dia yaay biti bu suraa dootoo ko dooleeti. yow balaa maa dee. yaay njëkk dee sa nàqu dëj maa koy dëbb. na comprendre naa. man maay dëbb sa nàqu dëj ak sa bu ndaay ak sa bu baay. maa leen di dëbb a jàpp mais nga wër rek di tàgg di ñu tàgge ci réseaux sociaux yi nga wër rek di tàgge di tàgge rek koo rey tey bu subaa nga rey kee. ndax la bon. tural naa bon na de mais ñu am ko sa 10 jours koor gi demagul sa 10 jours. ndeysaan. noppi naa wax mobil bay bàyyi. ñàkk ful la. mel ni borom kër gu ñu dab di ñan ku joxewul dépasse mën ngaa laal. <laughs> <laughs> jur mu dee taxuloo yara dal jur mu ne léegi dafa jul gàcce looloo yara dal kii bu ma doon ndeyam keroog muy judd ci maternité ba damay toog ci kaw mu bàcc. ayca daan tey kon métti na de. man da waroon reer nag dégg nga. sa nijaay Thierno Diop. ay yaa baax nijaay waay. sa néegu ndey ñëpp a baax. te néegu ndey gisuma fa ko bon.